léegi ne léegi vétéran yi la mhm. daanaka euh, musuma gis lii Afrique euh, loo xamante ne et dans le monde réew boo xamante ne dafa tegle sur deux ans quasiment deux mille vingt deux sur deux ans gagné cinq titres majeurs loolu euh, loolu musuma kaa gis quoi amoon na ay domination certaine mais nii au niveau équipe A équipe locale yeneen catégorie yi di si tegle c'est la première fois mhm. loolu c'est la première fois loolu fépp nu ñu mun ci dem musuñu gis loolu en tout cas moi de ma carrière léegi xëy na lan moo indi loolu loolu tam euh, daan nañu toog ñu ñu ñu ñuy analyser pour nga xamante ne les sec suñuy succès yi qu'est-ce qui qu'est-ce qui en la clé afin que mun a nekk après loo xamante ne moom mooy dem euh, moo fiy des pour que ñu génération yi ñu ñëw am ñu siy jàng mu am aussi répétition mais comme lu ñu ko doon waxee sànq yaay a eu yoo xamante ne Ghana moo yoroon mbir bi Cameroun yor mbir yi nigeria Égypte defe naa heure Sénégal la sauf que Sénégal lu mu def kenn defu ko fi. Sénégal lu mu def ñeneen dëkk yi xëy ne dañ doon tegle di gagné Coupe d'Afrique comme Égypte équipe A bi di gagné mais tey nii catégorie yëpp gagné sa sous-tend loo xamante ne xëy na am na fii dans un état d'esprit nouveau euh, avec peut-être des conditions nouvelles. yoo xamante ne qui permettent à suñu équipe mais mosuma gis loolu di leen féliciter bu baax a baax quelque chose est en train de se passer xam nga waxoon nañ ko fii mm-hmm. am na loo xamante ne mu ngi quelque chose est en train de se passer il y un sentiment loo xamante ne dañu xam luñ mën ñu xam suñu bopp xam sa bopp xam loo mën moo gën gëm sa bopp boo xamee sa bopp xam loo mën les choses deviennent possibles c'est à toi de pousser te defe naa ñun si loolu la nekk léegi te xale yi ñoom ñëpp dañ koy woon sànq boo xoolee match bi c'est sur l'impact y avait de l'émotion y avait de la nervosité mais si impact yi lañ dóor mu mm-hmm. marocain yi et loolu c'est une prise de conscience euh, nouvelle dans mmh. notre football. que c'était no de nos points faibles. c'était nos points faibles. avant leen c'est une équipe qui a mu ngi door a encaissé si demi-finale yi la door a encaissé donc match yëpp c'est des 3-0 4-0 nga ñëw demi-finale encaissé dem série mm-hmm. bii ñu mënalee 1-0 mu reste à peu près minutes minutes nga égaliser dóor c'est renverser la situation dans c'est c'est quelque chose quoi je pense qu'il faut ñu wax ni que les Mar Marocains n'ont pas démérité ñoom it ñu ngi leen di encourager Bouba réaction waaw euh, kontaan rek mm, je franchement Euh, li xew Sénégal ci mbirum football moom dañ koy rafetlu parce que bu dee bëri na am na yu ñu ñeewee en Afrique fu mu nekk nii moom loolu la te effectivement lu koy waree lu koy lu koy firndeel mooy je pense que dafa am benn liggéey bu ñu bëri nekk di def depuis des années euh, moom moo commencé di fay mooy mbirum formation. parce hmm. que bëri na ay jeunes yoo xam ne âge bu leen jël ñu intégré école de foot vraiment tax na ñu am benn dimension technique ak ak ak psychologique boo xam ne moo leen di permettre quand ñu ñu ñu évoluer et lii dafay dal xel parce que boo jëlee ci catégorie yëpp da wax ni à la limite la relève elle est elle est elle donc di ngay njëkk di ngay njëkk a félicité mooy l'état du Sénégal hmm. parce que ñoom ñoo créé peut-être conditions yi nga xam ne booy am nañu encadrement bu baax am nañu préparation bu baax parce que gis naa ni bëri nañu période boo xam ne dañ koy toog di préparer compétition yi loolu c'est important et li ma gën a neex mooy que yu si gën a bëri dañ ko dem ci àll bi jëli ko. xam nga loo jël si sa ci sa ci sa réew. ak loo jël si àll bi bokkul sa réew tu avantage pelouse bi supporter yi te xam nga dafay dafay daf lay c'est favorable pour équipe bi quoi mais le fait que nga dem tukki dem beneen dëkk. jëli ko jëli ko fa si ay dëkk yoo xam ne si ay daan dajeeg naar yi dañ naan ah naar yi moom bu yeboo ñu dem ñibbi mm-hmm. xam nañ ñuy gañ. donc complexe boobu gars yi gars yi. kii nañ ko vraiment ñuy féliciter le président euh, euh, Augustin Senghor quand même parce que moo nekk ci bopp bi mm-hmm. moom moo jiite affaire bi vraiment ñu koy féliciter di féliciter staff bi yëpp mais vraiment di encourager euh, quand même kii de foot yi fi nekk ay génération foot ay dakaar euh, Dakar Sacré-Cœur et tout ça je pense que bokk nañu si ñu nga xam ne man nag am naa ci benn fat satisfaction mais xaw ma turu joueur bi kan la mais du Amadou Diouf non dafa am benn dafa am il quelques années sept ans ou yàlla yooyu wala huit ans ma amoon benn initiative bu tuddoon Petit Pelé mm-hmm. bu ma bu ma bu ma defoon dépensé si xaalis parce que dama bëggoon gis ay boy yu football ma ma ma ma def tournoi bi mu jeex keroog bi ñuy gagné final y a Bouba moo mon assistant mon cousin qui m'a appelé qui me dit benn boy bi bi ñu ko nee bi ñu ko laajee dafa ne moom petit pële la commencé. Oh. ce qui veut donc am naa ci peut-être benn benn kii pour wane ne rek ñun ñëpp dañu yàgg bëgg a foot. donc loolu ça m'a ça m'a fait vraiment plaisir quoi macha allah. Badara. waaw di tàmbalee rek. ci jaal bi mhm. waaw njaale suñu bokk comme ñu ko met waxee euh, kumma islamique bi yëpp la ñuy jaale parce que le xalif bu Ndiassane suñu suñu kilifa la ñun ñëpp yàlla na ko yàlla dugal ci aljanaam yi gën a kawe allahuma ixfir lahu warhamhu ma ci profité di jaale ku bokk ci famille bi muy suma papa Badara Diop di papay Matar Diop suba teel bokk ci famille bi maa ngi koy jaale bu baax moom tamit euh, ndax ci famille bi la bokk der kontaan trop vraiment ci lii booy réussiraat tey muy nekkaat gañewaat beneen Coupe d'Afrique mu doon léegi presque lu ñu miin mu doon loo xamante ni euh, dafa nekk di di répété wu ba booy seetaan li réseau même ci dëkk arabe yi même booy seetaan suñu mbokk camerounais yi ivoiriens yi ainsi de suite dañuy léegi di ñu tooñ ci seen snap yi ci seen communication yi ci réseau yi di wax ni Sénégal ñoom léegi dañ fi nekk pour lu ñu teg rek ci wàllu compétition ci football ñoom ñu jël ko muy lu neex ci xol. vraiment euh, liñ ci ñi ci war a féliciter mu bari lool mais man particulièrement euh, victoire bi dama ci am ndam boo xam ni c'est personnel ndax yàlla dafa dogal sama xarit bu ma jegee boo xam ni dañuy échangé tout le temps mooy sélectionneur bi moom mooy entraîneur u u bi muy Serigne Saliou Dia yàlla dogal Serigne Saliou bi mu paree équipe bi presque ba concocté équipe am presque lu lu jege dix wala mu mat ko IRM bi jàpp leen donc presque à un mois muy waaja dem li mu defar ba ba defar ossature am bay waaja dem ak moom compétition bi ñu booy xaaj bi yëpp presque URM bi jàppale. URM bi mooy URM bi mooy maanaam ni ñuy xoole si rajo yàq yi yàq yi ah pour xam atu atu booy yi. Ah. ñu jàpp presque xaaj bi mu. presque war a changé waat équipe bi ci moins de un mois. Hmm. maanaam li dem nii. Hmm. équipe bi ñu changé moo dem. Hmm. donc ñu changé ko. ñu dem am ndam lu mel nii mooy wane ni talent yi li muy njëkk a wane mooy talent yi au Sénégal léegi presque dootu fi jeex parce que boo préparé compétition bay waaj a dem ñu changé presque xaaj bi nga jëlaat yeneen sénégalais booy jeunes yu nekk fii waajal leen mais loolooy wane ni talent yi am na fi et bari na fi. beneen bi mooy wane ni Serigne Saliou aussi est un génie parce que en un rien de temps nga yoraat booy yu bees nga defar projet de jeu ak ñoom gëmloo leen ko dem ak ñoom ñuy dóor ay trois 0 ay ay ay ay ay ay ay 2-0 ay score ba tey. ñu gagné compétition bi Serigne Saliou vraiment bravo sama xol sedd na ci ndam li pour le Sénégal mais kontaan naa ci li nga réaliser aussi pour le Sénégal toutes mes félicitations suñu xarit yi ñu am en commun aussi muy ñoom Pape Samba Paris muy Talla muy Matar ñëpp kontaan nañ ci ndam li yàlla na jik Sénégal yàlla na la jik euh, li ma gën a neexaat aussi ci ci ci ndam li mooy dafay wane formation bi buuba di wax tey amuñu fayu les formateurs sénégalais yi nekk fii di defar booy yi ñu gis mindset bi bees bi booy yi am muy l'esprit de la gagne la culture de la gagne bi ñu doon waxtaane fii ni dafa manqué tey moo présent ci bopp booy yi da ngay sentir ni léegi Sénégal dem na ba match dafay compliqué nga yaakaar ni sax dañ koy perd ñu lijjanti ko ba gagné ko parce que man Sénégal Burkina Faso vraiment j'ai eu parce que les bi un produit benn jeu boo xamante ni vraiment boo seetaanee booy yi ni ñu doxalee ba gagné match bi da nga naan làqar ci nañ ko ak état d'esprit ak mindset boo xam ni moom la ñu làqar cee match bi ba gagné ko vraiment jël coupe malentendant jël U20 jël CHAN jël CAN jël U17 demaat mondial nii booy yi tamit dem mondial vraiment ndam la pour sport te dafa am malentendant yi but su choqué aussi donc but choqué aussi Augustin vraiment est à féliciter, mm. comme Bouba l'a dit. Euh, je veux dire, les formateurs sont à félicité Les présidents de yi nekk fii ci football local, bi ils sont à féliciter. Nos entraîneurs, Serine lu mu réussir, c'est extraordinaire, mais Pap Tiaw aussi réussir na lu grave. keroog Malick Daaf defoon ko Aliou Cissé li mu nekk réaliser donc football bi daal li ma yàgg a wax attractivité territoriale ak liy reetaanloo sama gars yi muy soft power bi. donc vraiment soft power bi cette attractivité bi muy indi réew mi yàlla na gën a jëm kanam Sénégal li ci am ndam muy neex. wuy ma IRM bi xam nga <laughs> bëgg ñëw fa malal pour seet ban âge la. IRM <laughs> bi bi mu seetee malal 62 yooyu lañ. jàpp <laughs> non il faut ñu. ah bu ñaata la jàpp non non parce que non j'ai un vrai problème beneen problème. ah oui ah oui il faut. kon gëmoo kon pour yow dépassé naa âge bi ma am. ah non pour man yow yaay Charles mi ngay ji doy yaay doy. Ah, ah. mais il est jeune hein.

non non eh. malal non t'inquiète yow kenn du la yóbbu IRM. fan lañ koy yóbbu. laboratoire <laughs> carbone 14. <laughs> bu IFA. bu Cheikh Anta lañ lay yóbbu yow. Ah, <laughs> alors honorable yow tamit euh, on était tous scotchés au match d'ailleurs looloo tax ñu yéex a ñu yéex a commencé euh, yow tamit naka naka nga dundee affaire bi ban yëg-yëg nga ci am looy wax. Euh, looy wax euh, booy yi après performance bi ñu def. bon comme li ñëpp wax rek. der mooy euh, en tant que sénégalais dañu am sentiment de satisfaction. Euh, loolu nag dañ koy sante tous les acteurs moom la ñu wax et les acteurs suñ koy wax au premier plan c'est l'État parce que xam nga État moom mooy définir la politique sportive mais également moo koy accompagner pour ñu mën ko mettre en œuvre te li ñoom bu ba wax suñu ne formation c'est parce que État ci biir politique sportive am na le volet de la formation loolu nag lu ñu manqué woon la parce que bon euh, Sénégal yàgg nañu di xeex ci football mais mosu ñoon gis yoon bi mais avec la petite catégorie tey gis nañ ne ça commence à donner les résultat mais li ci gën a particulier ak gën ci am solo am na lu ci bu ba wax léegi dama siy yokk parce que dafa wax ne si biti lañ koy gañe ji mais man constat bi ma def mooy en dehors de cela aussi c'est de grandes équipes yoo xam ne ni la ñu nekkoon si ñun au temps particulièrement c'est des équipes du Maghreb oui c'est le Maroc c'est l'Algérie c'est l'Égypte donc loolu également am na benn jàngat bu ñu ci def wane ne que euh, il faut ñu gëm ne que formation bi dafa bokk également ci pilier yi nga xam ne moom mooy euh, te te notre sport national euh, deuxième jàngat bi mooy man dama jàpp ne tey tout le peuple sénégalais moo bokk ndam li donc war nañu jàngat également que Sénégal benn la te kenn mënu ko xar lu mu metti metti lu jafe-jafe am am na bés dina ñëw loo xam ne ni ñun ñëpp koy bag man jàpp naa ne ci sama njort bu rafet tey ndam li amul kenn ku mu neexul peut-être ba ba ñuy gis leneen. parce que nit it da ngay rafet njort tout le temps moo tax véritablement dañuy ñaan euh, succès yu mel nii ñu koy ñu koy am ci réew mi parce que nag sport facteur de stabilité la dafay indi jàmm ci réew mi dafay boolewaat xol yi te jàpp naa ne tey fi may wax ak yéen nii tey sénégalais yëpp a war a am mbigte ci seen euh, seen équipe nationale. donc ñu ngi tiire chapeau au coach aux joueurs au staff mais également euh, au gouvernement de la République du Sénégal et président de la République Macky fi yàlla teg te lépp également ci ayam la jaar donc il faut loolu également ñu ñu nangu ko ñuy ñaanit li des suñu kanam yëpp rek ñu am ko ay ndam ci ci yeneen discipline yi surtout parce que le basket est en train de quand même chuter il faut ñu wax ko te le basket moo nekkoon suñu miroir au temps je pense que basket mun na roy ci football bi mais les autres secteurs également que ça soit l'éducation la santé ñu xam ne liggéey rek moom moo mun a tax nga am yenn résultat yi donc je boo xam ne ñu ñëpp war nañ ci tirer ay enseignement bu baax a baax ci suñu taxawaay ci wàllu réew mi. honorable député bismillah waaw vraiment comme lu ñëpp wax rek di félicité euh, joueurs yi di félicité staff bi di féliciter fédération bi di féliciter encadrement bi yëpp parce que mhm. vraiment c'est une prouesse Euh, toutes ces victoires parce que demoon na ñu ñum ba gëm ni Sénégal on était des losers. Mhm. si wàllum sport. damoon na euh, chaque fois donc toujours on avait de bonnes équipes on avait parce que ñu fi jiitu ñu jiitu woon démérité wuñu mhm. waaw mais on n'avait pas cette gañ euh, gagne quoi mhm. voilà mais léegi gis nañ ni vraiment depuis CAN bi macha allah gars yi euh, ils ont su quand même euh, vaincre le signe indien mhm. euh, te victoire yaa ngi toppante et c'est des victoires parfois à l'arraché difficile ah mm mais dañuy gis ni chaque fois euh, on parvient à s'en sortir mm. donc muy loo xam ne vraiment c'est un motif de satisfaction euh, wane euh, ni Sénégal suñu àndee on peut faire de grande choses waaw certes c'est un petit pays soo ko comparé yeneen pays yu mel ni ay Égypte ay Nigéria ay euh, Éthiopie en termes de population en termes de superficie mais c'est un grand pays vraiment en termes quand même euh, de qualité de ses ressources humaines te seetlu nañu chaque fois suñu compter sur nos propres ressources gëm suñu bopp on peut atteindre nos objectifs je mm. pense que y a une certaine sorte de patriotisme sportif boo xam ne léegi sénégalais yi incarné nañ ko avec ce cette équipe de football là ces différentes équipes que ce soit beach soccer bi CAN bi euh, CHAN bi U17 U20 malentendant yi ñu fi wax yëpp. Mm. di ñaan yàlla mu wàll également yeneen kii yeneen discipline yi. Euh, ñu si am ndam tamit euh, te également ñu gën a mu encourager état tamit mu développer les infrastructures c'est vrai que y des efforts qui sont faits mais on constate ba léegi qu'à la base des gens évoluent dans des conditions yu xaw a jafe donc moo tax may naan prouesse la donc également di euh, wane ni dans d'autres domaines que ce soit en sur le plan du développement en général on peut compter sur nous-mêmes et on peut réussir donc man euh, loolu laa koy kii vraiment di félicité ñëpp di ci am vraiment mbégte bu rëy et di ñaan yàlla quand mu wëy et mu wàll yeneen discipline sportive yi ñu nekk à la base ñu gën leen jàppale parce que moi qui vous parle je viens d'une région boo xam ne bon on a stade régional en chantier ba léegi parewul da quand tu vas à Sédhiou le stade municipal depuis sept ans c'est en chantier ba léegi mënuñu ko livrer donc c'est difficile mais malgré tout euh, ñu fay jóge di dem au niveau national wala di dem au niveau international on est toujours fier de l'exemple c'est Sadio Mané il vient de Bambali tey soo demoon stade Bambali y pas de y a y a pas de gradin y rien c'est kii la nii rek. loolu laa la bëggoon wax donc tu es un élu de Sédhiou. wa ah, euh, fi nga dëkk ak Bambali sori na. non non c'est à Bambali vingt trente kilomètres. vingt trente kilomètres ok ah c'est tout près. Uh-huh. tout près donc euh, Papis Demba Cissé il est de Sédhiou. ak ñeneen ak ñeneen mooy moo euh, si région yëpp. c'est toutes les quatorze régions tu vois de talents partout. malgré que ils n'ont pas toujours les infrastructures qu'il faut. mais euh, prouesse ñuy réaliser tey seen championnat seeni club yi ak au niveau de l'équipe nationale ça nous rend tous fiers quoi donc vraiment di leen gërëm di leen sant te c'est des motifs vraiment de joie c'est pas euh, bëriwul euh, parce que on est de c'est vrai qu'on est dans des difficultés l'atmosphère est tendue donc yi vraiment ça réunit le peuple ça réunit les Sénégalais alors euh, juste benn kii rek buuba. souligné ko souvent Malal waxagul mais moom dam koy dañ ndax baaba man baaba naar bi ko damm il n'a plus de carrière. Mm. en attendant ñuy indi <laughs> carbone 14 bi pour xool. ma jox la. mais waaw man bëgg naa ci wax tuuti ah. ah, ah mm. mm. li indi damm bi ci baaba naar. parce que je ne l'ai jamais expliqué. <laughs> yow doon débordé. non en fait <laughs> dama yor bal bi. ci milieu terrain di ko dribble dribble ba yóbbu ko ci touche bi bàyyi ko fa. touche bi bari ko de. touche bi buntu kër ñoom Mbaye Samb la woon. waaw <laughs> grand Mbaye Samb grand neefu jaxaay la woon ñëpp xam nañ li ma yóbbu ko ba ci touche. Hmm. bàyyi ko fa. beneen bal ñëwaat ma wàcce ko amorti par la poitrine <laughs> xuus mu topp ma. ni ma toppee moment bi may xàcc pour dóor ci caax yi. ci la dégg sama tànk ma am double fracture. Hmm. ñu yóbbu ma hôpital principal. Hmm. donc c' était en 1998. en 1992. 92 et 2000. 92. boobu ma ma j' avais 18 ans. 92. oui. j'ai jamais fait de jugement. waaw 18 ans ak léegi ñaata donc tu en as combien maintenant. non moi j'ai 49. ah ok non 18 92. j'aurais 41 tu es né où. 18 je suis né à Saint-Louis. 74. j'aurais 40 Saint-Louis ville wala Saint-Louis àll ah, ñu xool ndax dañ ciy teg TVA. j'aurais 49 ans le 19 juin. donc en fait ah, bu dul woon moom en 98. mondial grand mondial sew mën na ko seede signé naa Chelsea. Hmm. je le dis yow. fii nii taakale naa la fii taakal glisse. <laughs> si c'est vrai ou c'est faux. non mais Malal man football. naa ah mais non non non. tacle la tacle glissé <laughs> ou non mais Malal ñun ñoo nekk ah non non ñun ñooy initiateur u kii bi mu tudd. Mbalax man rappeur. oui mais waxuma loolu. non non non moi. toi et moi on a eu un match ici. non non mais Malal tu n'as pas amuloo benn aptitude technique. non par exemple mënuloo sax contrôler bal contrôle non tu contrôlais moi je suis un défenseur d'habitude. Ah, non li fi wax léegi. non non après ah. après. après nekk naa défenseur jaxaay malal continue waxal ci kii bi ci Coupe d'Afrique non non pour moi les victoires elles sont importantes parce que victoire victoire li tax mu am solo mooy dafay inspirer ñeneen c'est-à-dire et dans tous les secteurs c'est-à-dire instant bii nii ñu ngi gagner on doit continuer de gagner gagner nag c'est dans la cohésion qu'on le fait et il ne faut pas qu'on perturbe par autre chose ou par d'autres moyens li nga xamante ne effectivement moo ñu yóbbu ci victoire yooyu on félicite tout la fédération on félicite le ministère des sports on félicite euh, ñi jiite affaire bi et aussi féliciter boy yi c'est c'est quand même assez important mm. gis nañu Aliou Cissé gagné ñi ci topp dañuy bëgg a donc je pense que on n'a pas on n'a pas encore fini on va encore encore gagner UV yi ñu ngi dem mondial dañ bëgg ñu indi mondiale bi et d' ailleurs U20 euh, yaa ngi ma koy informé ne ma incha allah dinañ ko wane. fii sur l'antenne de